Sénégal 4 TV yow yaa ko moom ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Si vous gan nga ci kër gi nak, le bouton abonnement bi teg bul faté activer walla cloche de notification bi dé ngir baña tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi et maintenant bon visionnage Assalamualaikum, wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal 4 TV ma ngi len di nuyu bu baax di len ziar bëggee moo ko won ni mako defé nak dama bëggoon am numéro soxna si di ayda gallo. bu mëna waxtaan ak mom bu baax baax digënté julit ak mbokk julitam waye digënté tamit yaay ak doom diko conseiller rek ci sama xel mu gatt gis nga xam nañ ne xol bi rëy na te bëgg na liggéeyal sëñ tubaa bu baax a baax sëñ tubaa ku nekk mën nga ko liggéeyal fa nga toog ci sa biir kër te doo liggéeyal sëñ tubaa sax sa bopp ngay liggéeyal sëñ tubaa dafa liggéeyal boppam ba am li mu am lépp kon ku ko bëgg ku nekk rek dangay teg sa tànk fa sëñ tubaa tegoon tànkam benn may conseiller Aïda Diallo li mu jënd ci betaay muy ay nag ak giléem ak yooyu am na ay kër yoo xam ne ñu ngi ci Sénégal gii bëgg nañoo ñoom tamit bokk ci màggal gi waaye amuñu moyen pour bokk ci ndax am ci eh, ci ci conseil du seet kër yooyu kër gu nekk mu dugal fa nag defa saaku ceeb defa leen saaku pompiteer dafa leen saaku soble saaku vermicelle kër gu ne mu dugal fa kër gu neex wër kër yépp mu dugal leen loolu defe naa ne tiyaaba kenn xamul nu mu toll nga fekk ñoo xam ne xalaatuñu woon bëgg na noo feetal bëgg na noo feetu ñu ñëpp amuñu lu ñu feetoo nga dem fekk leen fa ak mbetteel kër gu ne nga wàcc fa benn nag wàcc fa saaku ceeb wàcc fa vermicelle wàcc fa sople jël enveloppe bu dix mille wala vingt mille jox leen pour ñu jënd ci la cay topp defe naa ne ñooñu buñ la ñaanalee sa tur du fay mukk moo gën xëccu xëccu bu ëpp beneen bi ci des ma di ko invité ak di ko ñaan eh, am na ay moyen yàlla bàyyiwu ko te subhaana wa dafa am lu mu wax ne nee na ki am ñu amul seen wërsëg seen seen wa àq mi ngi ci ay loxoom nawet bi ku ne xam na ni metti am na kër yoo xam ne ñu ngi ci ndakaaru gii wala Cees gii wala foofa mu dëkk sax ci côté yooyu noonu ñu ngi ci biir ndox mi ndox ma dem na ba fer seen kaw te ñu yore njaboot na xalaat ñooñu jënd juróom wala fukki mute pompe yu leen dindi di lu leen dindil ndox moom lii day conseil la boo xam ne maa ngi la koy jox gis nga nit ki mën nga participer ci bay ci toolu yàlla bi sa wàll la bay ko ci sa wàll la te doo xëccoo doo xuloo doo xeex kenn du la humilier kenn du la saaga yàlla mi nga xamante ni bi ku ko def moom du ko xarab boo ko defalee lu day na zaratin mais benn pep poussière ci mbaax mbaax yàlla suñu borom dina la ko fay moom du du mën na def lu baax ci ci li mu yor li ma doon gënal nag lii ma def nii gënalu ma de ndax xam naa ne nañ ko tasaare ci réseaux sociaux yi li ma doon gënal pour mu dégg ko li ma doon gënal mooy ma xam numéro xam këram dem toog waxtaan ak moom teg ko ci yoon te su toogee yoon wow ba yomal xiyam turam du fay ndax am nañu soxla de am nañu xiif xiifa ngi fi soxlaa ngi fi te moom mii li ko yàlla dénk mën na ci dimbale noonu jaamu ci yàlla te bàyyi xëccu xëcc moom di xëcc rek di xëcc bu yàggee day dagg te mën na dagg fu mu la neexul fitna kenn du ko yee fitna buy nelaw bàyyi ko mu nelaw waxu kilifa waaw la tudd bul def bàyyi naa sa bopp ngay liggéeyal sa compte bopp ngay liggéeyal ak sa njaboot ak woy fii bàyyi ëllëg mën nga koo def ci ñi nga xam ne néew gi nañ néew nañ doole bu doo duggoon ci àll bi tey jii am na ñoo xam ne seen xel nekkul lu jul màggal comme ni ko ñepp ni nga sëñ Tuubaa waxe won ne na ngeen na ngeen ma magal le na ngeen ma sante le yalla te ku nek mën nga ko sante ci sa biir kër so am moyen dem aduna bi yëpp boobee ko won dem Touba xaju ñu Touba il faut mu am ñu tok ci kër ga ci kër ya jang alcorane rey mberde sante santale ko yalla am na xamni amul ñu lolu loolu ñu amul loolu toh soxna ay Diallo dama ci ñu nga dimbali len kër gu ne nga fa nak dox leen saaku ceeb saaku vermicel saaku soble jël vingt mille wala trente mille dugal ci enveloppe dox leen jox waa kër ga kër gu ne nga topp ko noonu topp ko noonu ba am kër yu bari nga am nombre de kër nag yi nga am nga am nombre de kër yu day noona ñooñu tamit ñu rey ñooñu tamit ñu gis seen bopp ci fet gi comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoy woon ba jirim ba toogee ñëpp tuwaaletu ñëpp sañse moom mu toog rek ak ay sagaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ni ko waaw yow lan moo tax toilette woo la tax foo comme sa morom yi nga beru fee mu ne sama papa dafa gaañu mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne dafa feebar mu ne dafa demoon ci ci jihaad bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woote woon foofu la des Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak bu rafet bu tàlli bi mu ne ko xam nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ko déedéet mu ne bëgg nga mu nekk sa papa mu ne mu ne mu ne ko waaw mu jël xale bi dem jëndal ko yëre yu bees jox ko adopté ko. xale bi génn gee comme ñëpp fokkum comme ñëpp jëf jooju la fay jëf gi day noona kon ay dajàllu am na ñoo xam ne nii soo leen indilee benn xar rek wala pooju nag rek dinañ la sant sant boo xamante bi du am app am na ñoo xam tëbësk ba tëbësk lañu ñu lekk yàpp jëlal ci nag yi dimbali leen soo amee téeméeri nag demal wutal téeméeri kër dugal fa nag kër gu ne nga dugal ñëpp rey ñëpp gis seen bopp ci bi ma ne lii laa lay digal bëgg ma ko woon nii nag laajte naa fu ne fu ne laajte naa ko moyen bu nekk jaar naa pour xam sa numéro mais mun ma ko am asalaamaaleykum wa rahmatullah. Sénégal 4 TV yow yaa ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 Sénégal 4 TV. forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi ci nekk et maintenant bon visionnage.